sant yàlla sant yàlla bu baax en tant que Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly nekk coordonnateur bokk gis-gis Touba nekk tamit ancien coordonnateur coalition de nos départements de Mbacke sant yàlla gërëm see Ahmadou Bamba sant ko askanu Touba ak département Mbacke di leen remercier ci seen matuwaay ak seen mat gi nga xamante ne moom lañ wane woon du ko wane waa chaque jour lii ñun bettuñu woon yàgg nañu ko xam ndax loolu la koo xamante ni ñin la ñoo xamante ni kenn du leen jënd tey tamit Sëñ Touba moo ñor ak dëkk bi ak diina ji na bi nga xamante ni campagne bu ubbi na la ñu tàmbali ñun suñu liggéey di dugg si ñoom di leen expliquer li nga xamante ni mooy proposition bi Macky Sall gisuñ suñu bopp xamuñu lu mu doon ñu waase bar ko mën a refuser pour bañ loolu xam ne ñun duñu ko ñuy jënd duñu koo xamante ne ñuy wax rek ni lii ngeen def te expliqué woon xam lu tax kon nag Touba wanante na seen bopp li Serigne Touba doon bañ si géej gi moom la taalibe Serigne Touba yi ak sëtam yi bañ tey ji si géer yi moo waral tey ji bureau de boo dem centre boo dem li tàmbalee téeméer rek jëm kaw ngay dégg di gis ay ñaar fukki juróom te loolu xam naa ne résultat la boo xamante ni mooy la nekk le meilleur résultat de Sénégal de tout le temps Touba nag wan na ni Macky Sall si référendum waat ko li nga defoon sa constitution nga téyewaat ko ñun soxlawuñu ko signal foor la pour ñi nga xamante ne mooy président de la république ak responsable yi nga xamante ni ñoo nekk si département Mbacké surtout que yi nekk Touba wan nañ leen ni leen mënul ñu fa dara si dëkk bi Touba andu ñoo ñoom kon nag Touba ku mu àndulul mooy xamal ni Sénégal àndut ak yow adduna bi àndut ak yow te da ngay daanu ndax Serigne Touba mooy Touba loolu moom daal kontaan naa si baax centre de vote boo dem lii moo fa am du fi dong Sénégal gi nga xamante ni moom moo am tamit li ma jot a dégg yëpp ñun ñoo fa raw waaye nag ñi nga xamante ne ñu waa Touba daal warante nañ suñu bopp wanante nañ suñu manuwaay xam ni daal noo bi moom liñ si doon séentu wax dëgg yàlla li ñu gis sax kaw na suñu njort lu nekk tamit def nañ ko si pour noo bi jàll. alhamdulilahi bu noo bi jàllee ndax kat bu fekkonte ne wéy bi jàll na tey jii kat ñun daan am gàcce ñu ñi dëkk Touba ak responsable yi nga xam ñoo fi nekk ak sët sëñ Touba yi ndax kon suba ñee daan bàkk si ñun waaye mun ñoo bàkku ndax xam na ni noo bi gañe na fi sant na gërëm nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah